moo daan te man loolu bi ma koy yàgg na si làmb man 2018 sama combat sox yàlla xam na ne jaay naa sama terrain ndax làmb. terrain. billaahi wallaahi léegi loolu mbaa du. non ay sëriñ. Ah, non déggoo li ma la xanaa nee naa la si condition yoo xam ne moo ñuy may ndam. waaw préparation bu baax. xam nga li ma la muy suñu wàllu entrainement ah, muy lépp loo xam ne war ñu si wàllu lekk pour ñu pour ñu am ndam. du ma jaay sama terrain du man rek sax làmb moo tax xam nga lan lañ amee dana am làmb dina loolu laay ah, xam nit si làmb la gisee sopp ñu ba yëkkati alalam may ñu ko ñun tamit bu ñu toll foo xam ne tey jii loolu ñu jëriñ loolu ñu teg noonu hmm. am nañ soxla boo xam ne da si war a dem waruñu taxaw di xaar parce que man loolu laa yàq man fi nga su may dem si làmb mu naan man su ma daanoo rek dama gëm ne suñu borom moo ko dogalee nii. mais su may dem si làmb lépp lu ma am ak lu ma amul yëpp dama ko siy def pour suñu borom may ma ndam. léegi doomu daaw. Mm-hmm. moom ak Eumeu Sène ñu bokk salle bi ñu entraîné. waaw moom mii. waaw ah. bokk si te. yaa ngi ko doomu daangu seen tim boobu noonu. non équipe ba tey daa yaatu. ak rek rek équipe ba daa yaatu. surtout bu ak ñoom seen. Uh-huh. ah ah ñoom Dacia. waaw ah. yéen da ngeen bokk di entre euh, musculation kese. Ah, wala da ngeen ànd parfois di yéegandoo di. non jàppal na ñu ngi defandoo lépp pour dire vrai. yéen ñi nekk foofu. waaw ñun ñi ko séq di ko def ñoo ngi defandoo lépp loo xam ne yaakaar na ne danañu jariñ ëmb seen comme ni ñu ko waxee suñu mag la suñu lépp la. fa la ñu xamante ba am mm-hmm. aussi ay ay ay ay relation kon ni mu demee que que Siteu mm-hmm. wala Reug mais si àdduna la ñu nekk Babacar mm-hmm. amaana moom li mu may jariñ li mu gis ne moom Eumeu Sène may jariñ su dee wax moom ma koy wax man tamit vice versa parce que ñun noonu la ñu àndee quoi man li ma mën a wax Babacar mu jariñ ma Babacar aussi noonu la ma ko mën a waxee waaw mais sàll la boo xam ne ñun ñoo ko bokk waaw foofu pour pourtant am na ay mbër yu fa yu fa yu fay entraîné sax seen combat taxaw na fa ñu bëri fa VDACA mi ngay wax bëri naa Youssou Ndour. Mm-hmm. Youssou fay waaw. Tidiane Faye bëri naa Tafa Gueye numéro 2 te ñoom ñaar ñëpp si même salle bi leen doon entraîné. xam naa loolu waaw. xam nga donc yooyu yooyu yooyu du dara quoi. parce tey jii Lamine mi dëkk Dakar bu gisee ne def sport moo ko doy. Mm. pour mu ñëw entraîner fa dafa war a ñëw entraîner mais est-ce que dafa tax maax moom dootuñu bëre. Ah, déedéet mais mais dem ngeen ba ngi defandoo lépp. Mm. waaw non xam nga non dama ne. Mm. li ñu du relation yi li ñu mën a defalante ñun book laa la bëgg a wax. li nga xam ne amul dara saal bi quoi a xam. waaw non yemul saal parce que tey Eumeu Sène mën na maa jëriñ hors de làmb. Mm-hmm. man tamit mën naa ko jëriñ si te aussi noonu mais dama xam ne ku si nekk tey ji la nga li nga bëgg sa morom wala boog li nga yaakaar sa morom yaa ngi koy wax sa moroom tamit de moo la koy wax. mais mu bëgg rek nga wax man li li am. wax ma Eumeu Sène da ngeen di contact. non duñu contact. mosu leen contact. non non mosuñu contact. ci àdduna. mosuñu contact ci àdduna. Reug Reug. mosuñu contact. <laughs> doy na waay kenn mosu gis li eh, Mathias. <laughs> liiru jaan mooy li liiru jaan kii moo ko tuddee Mathias. man ah, foofu waa Tëngéej ji laa dëkkal. nee naa mais Eumeu la. am na doole doole. non roy la si ñëpp. Eumeu comme li rek moom bokk na si mbër yi nga xam ne dañuy préparé loolu sax amaana moom style boobu si moom lañ ko gisee bokk na si mbër yi nga xam ne ñoom bés bu ñuy préparé rek bokkul ak beneen bés bu ñuy doon préparé moom mbër la moo xam ne aussi ku mën a préparé combat mhm. te mu ngi préparé combat bi ni mu ko ni mu ko ni mu ko waree. am na doole la instant waaw mais ñun jàppanteew ñu def ñu contact ñu xam nga man moo xam ne am na doole ëmb bokk man nag comme koor yi mu ñëwee bokkuñu sax ay heure entraînement. nga dama laaj ko loolu. yow ak euh, Modou dañuy war a bëre. waaw nga toog tëdd sa kaw lal <laughs> gisoo Ama Baldé gisoo Modou Lo. nga ne Modou gis naa leen dama gis moo tax ma wax. non Lamine su demee boobu. waaw laay ñëw ñun yàlla daf ñu may loolu ñu ñu jigéen ca xam nañ ko ñun suñu bàyyi woon làmb mën nañ man nañu def entraîneur moom laa bëgg a mm. wax nii mm. moom bokk na ci mbër yi gën a xam làmb yàlla daf ñu may loo xam ne dafa leen pas bëre quoi moo tax ma koy <laughs> sport man la mel sport laay def ma ñëw cest sport laay def man sport laay def ñaari at athlète suñu dawee suñu dawee mën naa la wax kii moo gën a pare bu ñu préparé ndoo benn bés war a jëflante sañ naa la wax kii moo gën a pare Eumeu Sène ci ban état de forme la nekk. non non xam nga lu tax ñu ko a wax. fois position bi du baax mooy ñun fi ñuy toogee dafay am position yoo xam ne hmm. tey nga jëm si bés. da ngay mal placé. nga li ma la wax mënoo taxaw naan moo gën a pare wala diw parce que ñun tamit am nañ lu ñu doy. Ah, la wax. même lu ko sóor laaj gën a pare de. bu ñu nekkoo non non Modou Lo ak Ama bi ngay hmm. wax bi ñu nekkee ci combat di dem ñun amuñu woon combat. waaw libre nga dañu jàppi woon parce que man su ma amul combat amateur la mën naa def sama pronostic. mais tey jii fi ma toll nii. jëm ci bés. xel sax yéen a wul maanaam man ma am ci lu ma jëm. toog di pronostiquer benn combat naan lii ak lii ak lii. loolu kañ yéen la war ak mbër yi nga xam ne ah, ah, amuñu combat. Ah, waaw mais yow tamit moom est-ce que d'accord na ak ñi ne combat mënuñoo bëree deux minutes. kan ak kan euh, Eumeu Sène ak Sa Thiès. est-ce que d'accord li ma li ma li ma mën a témoigner ci Eumeu Sène mooy gis naa ko muy entraîné ku fonk li muy def la témoignage yooyu laa xam ne. gis nga mën naa ko def mais li ñu gis aussi comme tamit si adversaire am Sa mooy li ñëpp gis. Ah. mbër la moo xam ne aussi li mu gën a fonk ci làmb mooy entraînement. ah oui donc combat la boo xam ne yaakaar nañ parce que ñaari techniciens ñooy bëri. Eumeu Sène gis nga ci ak moom bëgg combat bi trop trop nga xam ne sama waa ji téye na combat jël na combat bi en main. waaw gis naa si moom loolu xam nga lu tax tey jii man na la gis naa si moom loolu parce que Eumeu moo ngi ñëw saal di def li mu a def. moo ngi dem suuf sa aussi du jóge suuf sa di ñëw saal. ok xam nga li ma la wax tey jii mën naa mën naa wax ne tey jii li nga xam ne moom la mbër di préparé combat yëpp ñoo ngi gis Eumeu seen di ko def. donc li sewul dara si combat bi daal si li ñu gis man li ma gis. li ngay gis li mu war a def yëpp moom moo koy def quoi parce que moo ngi dem din mhm. moo ngi ñëw saal. moo ngi def contact moo ngi def box te yaakaar naa ne loolu mooy préparation yi nga xam ne ah, li ñu xamul nag xamuñu ko quoi. Hmm. bii mooy première sortie ci ci ci ci kii yi de moom ci grand contre petit bi de. balaa ñuy ñëw sax ci ci première sortie bi hmm. euh, à un mois du combat comme question bi yéen ñëpp mën ngeen ci tontu mu nekkoon ci préparation ci digg préparation wala ci ay dernier réglage mu dagg loolu noonu dem umra ji loolu ban jàngat nga ci def ban gis-gis nga ci am. ah comme li man nga gars yi ñoo ma gën a jàng moom li ñuy wax rek li Babacar am na loo xam ne moom li la war moom danga koy def te am na loo xam ne soo ko mënee rek toll si def ko nga def ko man pour man noonu laa ko jàppee ah te comme ni nga waxee rek xel tamit dafa yenu maanaam mooy xel xelam dal na. Hmm. parce que nga am si loo jëm ah, li si des si weer la nga dagg ko te conditions yi goo mën a di nga fa mën a entraîner. nga aussi dem fa peut être bon sa xel daal dal na quoi. Babacar ban gis-gis nga ci loolu. ci dem bi mu dem umra ji waaw loolu day li ma waxoon sànq si koor ga laa ci delluwaat rek. umra yaakaar naa ne. waaw jub la Lamine je pense que waxul ci côté boobu côté bi mu waxee mooy par rapport ak mm-hmm. combat bi quoi. Mm-hmm. du wàllu diine wala wàllu boobu quoi préparation bi dagg ka dem umra foofu lay waxee quoi. ok waaw non préparation bi par rapport mu dagg dem umra yi. dama naan loolu ça veut dire que dafay yónnee que ni Eumeu Sène nekkatul xale ci li muy def quoi tamit parce que mu doon tax sax mu ngi manqué dégg mu naan grand contre petit bi Sa Thiès la ciy njëkkee mais xamoo ne euh, euh, ñoom Tapha <laughs> ñoom Balla ak ñoom Modou Lo. Eumeu li mu leen jiite ci ak bari. dëgg ak bari. Mm-hmm. xanaa kay dafa nekk athlète boo xam ne maanaam ni mu bindoo macha allah ni muy entraîné moo ko permettre. daa comme ci taxawal da nga yaakaar ne ñoo. yaa ay at. Mm-hmm. yaa ngi dégg loolu yàlla daf ko ko may loolu nag mbindu may may suñu borom la mm-hmm. ba pare itam gis nañ ne athlète la bi man benn combat laa mas laa mas gis Eumeu Sène mu ñëw may dute ci moom ci entraînement mooy combat bi mu ñàkk contre Lac de mm-hmm. a boobu laa mës a gis di di dute na effectivement waaw jour boobu laa mais à part ça mosu muy ñëw ci làmb may dute ci moom Eumeu Sène day entraîné te période bi mu tolloon la nag période Covid la woon waaw parce que c'est c'est quelqu'un boo xam ne ni ci làmb boo ko xoolee li muy dégage Mm. ak li muy waxe Eumeu Sène bu nekkuloon tey mbër wax na ko commando lay doon être un commando nag il faut être man nekk nekk guerrier mm. nekk góor yàlla dëgër <laughs> doo bàyyi doo dellu ginnaaw Eumeu loolu lay dund kon kooku bu tolloo fii ci làmb nekk ci làmb lu ëpp vingt ans mu nekk ci di liggéey nga gis combat bi mu jógee barki dem donte ñàkk na ko mais doon dañ ko malmené daan ko mm. au contraire moo doon mal a ne sax mm-hmm. ba après la ko ca fekk fekk ko ca mu ñëw tey am xale bu toll nii di entraîné condition de travail yi muy liggéeyee ak professionnalisme bi mu doon ma maanaam bi mu amee ci làmb ma yaakaar ko ci moom te itam lu am la sax ah mu def équipe nationale nekkatul xale ci làmb Eumeu Sène tey xam na nu ñuy préparé athlète xam na nu athlète di préparé woo mm-hmm. kon su demee ba kombaam des un mois et quelque mu dagg ci benn dix wala quinze jours mm-hmm. dem ci lu nga xam ne umra la ah, di ab jullit loolu tamit yaakaar naa ne sama gis-gis mooy man de nangu naa ko ko parce que li tax mooy olof ne na nag net li sa dégg morom hmm. njuum dama ne la cee fekk parce que li tax mu wax loolu mooy moom Eumeu Sène mi nekk mbër mi nekk ci làmb Lamine fayeku ci ay junni ba ci fayeku million dégg ci ngóor si hmm. ba tey mu dégg ci góor gi parce que su ma nee góor gi mooy Eumeu Sène nekkatul xale tey doyen la hmm. Eumeu Sène Bombardier Gris Bordeaux c'est des doyens actuellement yaa ngi dégg parce que ñi ñuy wax muy Modou Lo muy Balla Gaye muy Tapha muy Lac de Guiers ñu seen ay doyen lañu. Mm-hmm. Bombardier seen doyen la. Eumeu seen doyen la Gris seen doyen la. Mm-hmm. ci as wala ci njëkk dugg ci. ci at ak ci njëkk a dugg ci làmb. mais est-ce que Eumeu Sène mage na ñii ngay wax lu bëri. non non non su mu doon ak lu mën a xew même bu leen magewul lu lu bëri. Ah. Mm-hmm. même bu leen mage même bu magewul lu bëri mais moo leen mag ci làmb. maanaam moo leen mag ci làmb Eumeu Sène bu mu duggee si làmb ak léegi yàgg na mhm. moo leen mag ci làmb même bu leen magul ci at en cent pour cent tey moo leen mag tamit ci at xaw ma nag différence d'âge ba mu soree lool waaye moo leen mag ci at mhm. waaye lu mën a xew daal seen doyen la ci sport kon doyen boobu mu doon nag Lamine war na koo mën a permettre tey ak fii mu toll dégg roi des arènes war na mën a liggéey ci condition ba condition yi war ko mën a permettre mu dagg entraînement benn quinze jours dem uf omra ñëwaat man mhm. gisuma ci inconvénient. Mhm. waaw le fait que mu dal xelam. quinze jours euh, moo daan ngay euh, hmm. kii 15 jours la Babacar wax de un mois du combat nga toog 15 jours wër est-ce que loolu xel nangu na ko. waaw waaw sport est-ce que maye na loolu sort au combat. 15 jours sans activité. non sport maye ko moom pour dire vrai quoi ah. bu ñu waxee sport une semaine sax loolu ëpp na ci. loolu moom bon lu sport nangoo ko mm. quoi. mën mm. nag la tax mu def ko moom moo ko xam. moom Babacar parce que la nekk moo ñu ci njiitu fuuf. Mm. xam si la ah ñu xamul. Ah dund si aussi lu ñu jotul dund. am si bànneex yu ñu amagul. am si ay naqar yu ñu amagul. donc aussi comme ni ñu koy wax rek mag moom lu ko teree reer rek reer. reer lu ko teree reer rek ba ci question bi rek. waaw Lamine. man ni ma ko jàngatee de moom gis naa gars yi comme nii ñu koy defe rek ci niñ ko mën a rek ñii di umra ji ñii di aji mais man moom xam naa ne moom. ma ko waxee ñu ne waxati na de man demaguma Màkka léegi demaguma kii léegi. lan moo tax umra ji ma ajaguma. lu tax. ah non lii may wax man la engage waaw lu tax demagoo lay waxuma ko pour benn mbër nag. mais man umra yi ma gis ak aji Màkka yi ñëw ba tey doonaat waa ji moom loolu defaguma ko quoi man instant yi nii nii boo ma tegaloon ñaari bi Espagne wala Màkka Espagne laa jël. ah pare goo quoi pour dem fële. Oh, xaajaguma sax eh. xaajaguma sax. Màkka bu ma fa demee ba ñëw keneen laa est-ce na aussi tamit. keneen laa doon. Ah, mu daal tamit nekk ma déggee ni ngay waxee dafa mel ni tey jii yow suñu borom daf la appal lu sori loo war a dund ah Babacar. man na maa faatu suba sax ah. ah. ah dina ko man na maa faatu suba sax mais dama. ma maa nga dem ko yàlla na fi yàgg. maanaam fi ngay waxee mooy jàppoon ni nit war na jóge màkk dem. Euh, dellu si li nga nekkoon dellu si li nga nekkoon. man loolu laa jàpp. li may wax nag waxuma ko pour benn mbër. yow la engagé pour man laa wax bu fekkee ne man mbër laa man bu ma demee màkk ma ñëwee damay bàyyi bëri. ok définitivement nag fas yéene jublu ci li nga xamante bi ni mooy kéemtaan ga ma fekk fële mais Eumeu Sène moom duñ def lu dul di ko féliciter parce que tamit wax dëgg yàlla làmb moom am na lu mu ci def quoi. dëgg la parce que bu fekkee ne fii ci làmb fii ñu toll 97 ba léegi wala 98 ba tey yaa ngi ci làmb ji te saa boo sumee ko duñ gis benn signe boo xamante bi ni signe fin de carrière la loolu góor dëgg ko man te Lamine. Mhm. Eumeu Sène nag ma wax la si loo xamante peut-être mën nga ko xam wala mënoo ko xam du lekk lu ko neex du naan ko neex. si effectivement na lu ñu ci wax. du lekk lu ko neex du naan lu ko neex te loolu nag jafe na ci sport bi ñu nekk rek lu ñu ci wax maag Lamine. du lekk lu ko neex du naan lu ko neex xam nga nag tey euh, bokkut ak benn moo Anta waxee da dem naan laalal ma hamburger laalal ma pizza mbaxalu mm-hmm. saalum nangam nangam comprendre nit nag bu fekkee ne maanaam sa vie. ak sa carrière jaral na la nga not ci sa ah? dafa am hygiène de vie rek. attention yëpp si hygiène de vie la. bokk quoi dafa am hygiène de vie bu normal. pourtant a wóor jafewul ah. ah déet mais ci par rapport ak lekk gi par rapport ak lekk gi mooy li rek jafewul parce que des fois gars yi da ngay wax hygiène de vie ñu fokk ne lu seer la nekkul lu seer quoi. déedéet hygiène de nit ki yow yaa xam nga tey baax na man li ma wax mooy da koo hmm. laaj. sa xam naa yow li ngay wax xam naa. mu ne ñaata ñaata ngay lekk ci jour bi xam nga lu tax ma ne xam naa. waaw mm. lu tax ma ne lépp parce que dañuy am na loo xam ne daf ñu koy conseiller ci wàllu làmb. Mm. tey jii lu tax ma wax la loolu lu tax ma ne jafewul tey jii pour man Lamine yow sa liggéey bi nga nekk am na lum la jaral am na lum laaj am na lum laaju. Mm-hmm. pour nga àgg fi ngay àgg la mu laaj yaa ngi koy def. Mm-hmm. la mu laaju defoo ko. Mm-hmm. pour man noonu la tey jii baabaka nekk sportif moo xam ne tey jii lii gënul ci moom pour man war ko def c'est-à-dire comme c'est simple. yow li nga nekk si métier bi nga nekk. Mhm. am na loo xam ne jàpp nga ne gënul ci yow. mais defoo ko. Mhm. ñun tamit ci li ñu nekk muy làmb jàpp nañ ne am na lekk yoo xam ne gënul suñu hygiène. wala ñu ko def pour man. Mhm. dafa yomb quoi parce que comme li ku nekk ca la nga nekk. la mu laaj lu nekk soo ko si defee rek amaana la nga bëgg a mën nga ko ci am. jërëjëf waaw. mu ah, euh, sa gis-gis ci Eumeu seen waa Eumeu Sène moom boo xam ne ci làmb dafa dafa def lépp ci làmb quoi en fait. loolu du dara voyage dix jours sept une semaine pour mbëru ci mbëru mag mbër boo xam ne def nga ci làmb non non duñu wax dara la ci làmb rek non dernier ak ak ñàkk dernier réglage voyage avion rek weer la wax def dix heures de temps xam nga xaaju weer cinq mai tey la lan tey la sept lan Lamine tey la sept avril comme ni nga xam la sept avril yaakaar nit préparé na combat ba mu des si deux semaines mu perte si lépp lu mu lu mu ñàkkoon lu mu amoon. mais la voyage rek mën na prépare perte combat ni préparé na combat ah, mu des deux semaines mu perte ah, lépp lu mu amoon. si mais daaw bu dee sport moom bi ñuy wax loolu na ko ci combat mag bu ñuy wax ak ñun bi ñuy jànga muy làmb muy football muy basket muy bu mu ci mënti nekk amul benn sport boo war a mën a toog deux semaines un mois après nga dem compétir amul. Hmm. mais mais est-ce que xam nga dama lay ne. par exemple dama la joxe exemple exemple. samedi ak dimanche bi nga xam ne ñun par exemple. dañ koy noppal. da laal boo ñëwee lundi sax da am problème mu mel na nga meloon. ci biir nekkaat da ngay tayal yaram bi day gëm na nga toog xaaju weer. war a ñëw si aspect sport laay wax quoi du ëmb seen wala keneen boo indi woon fi beneen entraîneur daf la koy wax amul benn sportif boo xam ne war nga noppalaku 15 jours nga war a nekk ci dem compétition. en tout cas daal li mu wax rek ci dellu man bu ko teree reer man man la li ma gis est-ce que 15 jours la toog est-ce que xam nga bi xam nga aji maka day ñaar am nga non ajiwul daa umra waaw ko si ay umra ak yooyu noonu si côté sport la ñuy waxee maanaam hmm. repos bi même bu dul woon bu dul woon bu dul woon dafa dem. moom repos bi dafa def rek ba ñu def dara dafa def voyage boo xam ne maanaam mënul nekk ci du umra bi moo si am solo wala ñàkk umra bi hmm. mais lamut maanaam déplacement bi. si moo xamoon. business bi boppam la ñun voyage dañuy wax voyage dañuy toog si. màkk beeg parce que boo dem umra am na la moo tax mbënd am combat 15 jours combat mu jël avion dem France ne am lu may def la fay def non non bu dellu see bu dellu see lu ma la fay def est pour entraînement. foofu laa xama man xam man dama toog gars yu bëri ñuy umra ji ko mën nga mais ñu bëri dama damay dem France jóge France jaar Maka def fii def fii def fii est-ce que mën nga mais de Balla ay temps rek euh, lu war a mat semaine wala deux semaines dañoo dañoo entraîné xam fu ma wax Lamine ah. Maka mën nga fa def fa deux jours wala trois jours ñu jàpp ne dafa quinze jours wala un mois